Vivez toute l'actualité sur Sénédiaspora TV. Avec Sénédiaspora, vous avez une couverture de toute l'info à chaud, 24 heures sur 24, politique, société, sport, culture, people. Abonnez-vous vite sur notre chaîne YouTube. L'information en moins de 3 minutes mardi 20 février 2024 Aïssata Tall Sall garde des Sceaux dina daal di janoog taskatu xibaar yi ainsi Sénégal ngir joxe ay explication ci multiple libération yi nga xamante ni gis nañ ko ci ay détenus politiques euh, loolee nag dina fekk si tam yenn ci ay càkkuteef président daal di koy joxone ngir mu fexé ba nu mu mën a climat politique bi ak askan wi ba ñu mën di dox jëm ci dialogue bo xamanteni dina tax ñu mën tek processus processus boo euh, dina euh, daal di jëmmal élection yi lañu ca daal di euh, bëgg ñu daal di wax nag ci li nga jëm ci président Macky Sall conseil constitutionnel nu mu ko avril la mandat am que tu ku ci daal di joxe avis moom moo di maître Doudou Ndoye ginnaaw plateau bi ñu ko invité démb foofee ca MNF moom daal dina ci wax ne naam président de la république 2 avril mandat am dafay jeex waaye nag bu ñu sukkandikoo kon ci li nga xamante ni di constitution bi disposition article 36 euh, kon ci alinéa 2, le ñu wax rek modi président de la république en exercice bi euh, fay rester ci fonction bi ba lata kon ñu daal di teg euh, beneen kon gouvernement wala président bu bees kon muy wax ni au delà de 2 avril kon président mën nañu japp ni mën naa toog kon ci nguur gi ba kérok lepp di yemb ñu daal di wax nak ci li nga xamanteni mom mo jëm ci jamono ji nga xamanteni lepp lérul ci xelu askan wi moom Rose Wardini nag nee na dafa bëgg apaisement am ak dal moom moo waral euh, ngir daal di mu rocceeku ci candidature am boobee nga xamante ni bëri na coow loolu ndax duubul nationalité ba ko ca topp nee na processus bi nag mu jaar yoon loolee la daal di bëgg ci jamono jooju nag euh, ci geneen wàll PDS moom nee na dina wuy di dialogue ba waaye nag conseil constitutionnel da ko fekk si ñoom ci li nga xamante ni soulevé woon nañ ko comme idée mu di report bi ndax amuñu situation bi ñu may mën a amal élection février bi ñu dëkkmal ginnaaw seen jubilé boobu kon nee dinañ kon waxtaani ak président Macky Sall mu di boobee dialogue maire bu Thiès itam docteur Babacar Diop loolee la wax jamono ji nañu dem waxtaani trouver ay solution waaye nag lu romb 2 avril dootul woowee président de la république njiitu réew mi te dina dindi fotoom ca maireem boobee nga xamante ni moom la rek daa di nekk ñu daal di jeexalee ak li nga xamante ni moom moo di université Cheikh Anta Diop faculté des euh, doxantu jeudi ci huit heures la ñu fas yéene tàmbaliwaat li nga xamante ni moo di jàng bi ginnaaw ay euh, bés yu baree bari wala ay weer yu ñu tëjoon seen barab yooyu le mbokki lii moo gën a fës ci xibaar yi ci Sénégal euh, dafay woy ëllëg ma dëkk dikkat yéen ci yeneen jotaay yi